ginaar gu weete wol saa yu ko neexee gasee benn tànk waaye buñ ko utalee wujj mbaa du mujjee ci géeroo xool leen l'observateur mu fësal ndaamal Kajoor sa sekk nguuram fi nga xam mooy mairie de cees tàmbali na nag di yànq wàccaes conseil municipal ba ba na amee waxtaan ci seen biir kii di adjoint au maire Yankhoba Diattara nee nañ kontaan ni ci ni nga xam ni noonu la yoree dëkk bi coow li nag jib na ba nga xam ni kii di Yankhoba Diattara dañ ko yuuxoo dañ ko tàccoo xas nañ ko ba mu woo ki nga xam moo di préfet ngir ñu tas li nga xam moo di réunion bi biñ demee ba ci biir ki nga xam moo di Malick Mbaye yëkkati ay kaddu nii dañu taxawal li nga xam moo di IDI initiative pour le départ de Idrissa Seck 2009 ba la ñu ngi ci dox te liñ bëgg mooy jóge fi nga xamante ni mooy mairie de Thiès bàyyi ñun daal di doxal parce que li nga xam moom moo am Thiès te dëgg-dëgg nag waa Thiès doyoon nañ ci sëkk. bu fekkente ni Thiès ma ngay takk am na koo xam ni këram ma ngay saxaar kooku mooy Mankeur boo leen ko déggee mooy jëwriñ bi nga xam ni moom la ñu dénk ministre des affaires étrangères moom nag jamono yi dafa am association yu jug AKS ak UKS mu nekk. union bi nga xamni mo ngank les chanceliers des ministères des affaires étrangères ak ñi nga xam modi di amicalu diplomate nekk ci ministère bi contane nañu ci nga xam modi di ministre bi ñu woy manke Ndiaye ba tax na jamono yi ciow jib na ci kay bi nga xam mo di le populaire nee na mom faw nak dañ doon bëgg soti ndox mu sedd ci ciow ju bi nga xam dafa judd ci seen diggante waaye Mankeur ak ñi mu andal nee na loolu duñ ko nangu ba tax na jël nañ ay sanctions yo xamni jamono yi nak am na ay affectation yo xamni ngi koy def nak te loolu nak nekkul lo xamni neex nañ nga xam ñom ñoo nekk ci kuréel yoyu ba tax na nak ciow la mu ngay jib fi nga ministère des affaires étrangères bu nu gaawul lool lool lool te dëgg-dëgg nag foofu tamit dina tàkk koo dégg mu naan maay doomu diw diw diw la diwoo waaye bu fekkee ni mooy rakku diw bu coow jibee fan la mujjee yéen leen yéen kaay bii ñu naan l'observateur mu dikk ci nga xam moo di Galaye Ndiaye Galaye Ndiaye soo leen ko déggee mooy rakku Aly Ngouille mi nga xam ni moo yor wàllu énergie ci gouvernement Macky Sall ci plan jaxaay xam ngeen ni ci wàllu traque des biens mal acquis maanaam alal joo xam dafa tegu ci luubal wala amit nga xel da cay tey ñu mel ni que Abdoul Aziz Diop ci plan jaxaay jàpp nañ leen yóbbu leen rëbës nëbb leen jant bi waaye dañ ni Galaye Ndiaye lan moo tax kenn woowu ko ba léegi rakku Aly Ngouille Ndiaye la ñu ni déedéet moom tontu na ci l'observateur mu ni ñoom dan def consignation maanaam li leen doon jiiñ

xam ni gémmiñam dafay nac du wax jàmm ñu desandi ci langue politique bi yéen leen la tribune fa la ñuy samp suñu xalima moo daal di fësal Mamour Cissé moom moo jiite PSD jant bi yëkkati ay kàddu ni nguur Macky Sall bi ñu ko falee ba léegi ca dëgg-dëgg askan wi ñu ngi jooy wàllu mbënn mi ñu ngi jooy wàllu courant courant amul wàllu li nga xam ni lekk ak li nga xam mooy denrée alimentaire yi ñi nga xam ñoo di askan wi kontaanunu maam ki nga xam moo di Mamour Cissé nag bàyyiw ci ki nga xam moo di Macky Sall ba nee na jamono yi nag ca dëgg dëgg dëgg ñi yor nguur gi ñi ngi enjoy waaye askan wi ñi ngi àndandoo di jooy ñi war nguur gi ñi ngi enjoy maanaam na ngay balaxal mat di noos ñi nga xam ñooy askan wi ñi ngi jooy mu mel ni rapitu bi nga xam mooy rapitu Macky Sall rapitu sàmbalaw bi la boo xam ni xamuñu fu mu leen di le lu ko mooy dina dugg ci tataawu Ismaïla Yassine ñaari kuy bu nu tasee ci mbalka dafa mel ni naan fa du yomb ba tax na képp koo xam ni demoon nga fi nga xam moo di Fass ca xadara di Jamil ca dëgg-dëgg nag naan fa nag yombul woon la tribune moo daal di indi mbir moomu fa leen di rëdd suñu xalima mu daal di fësal ñaari grand sëriñ de Dakar yi nga xam ñoo fa daje woon Abdoulaye Makhtar Diop ak ki nga xam moo di Pape Ibrahima Diagne Pape Ibrahima Diagne ba mu ko fekkee ci fa nga xam moo di lang ba mu agsee joxu ko loxo nuyu ko kenn ku ci nekk faalewoo sa moroom yor sa kurus naan da ngay waxante ak yàlla mel ni yàlla ci boppam gisul jëf joo nga xam ni ñaari kilifa yi def nañ ko ki nga xam ni moo moo di Mansour Sy Djamil nekk député moo woote woon bis boobu di magal ki nga xam moy wuy juróom bu tedd bobu waaye seigne Abdul Aziz si Al Ibn mom teewon na fa yekuti ay kàddu mu ne diggante ñaari grand seigne ñoy nak te deug deug mom xam na kan mo tooñ te nee bisi nga ci bisi dina wete ak ñom fi nga xam mo ci biir néeg ca ki tooñ di ko ni ya tooñ tegaat ko fi nga xam mo di yoon desandi ak góor gu tedd gi ñuy wooyee seen Abdoul Aziz Sy Al Amine fa la yëkkati ay kaddu yu daal di yéemee nee na nga xam mooy diggante waati waawoon ak Macky Sall nee na amul niir bu lëndëm buy dox ci seen diggante dellu si waat na ci bis bi nga xam ni sëriñ Mansour si borom daara ji wuy dina boromam nee na keroog ñaari nit yi laa njëkk a waxal ki ma njëkk a woo mooy le président de la république Macky Sall ki ci topp mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum moom laa woo daal di waxtaan ak moom ci téléphone mu nekk mbir moo xam dafa yéeme nee nag gàmmu Tiwaawan woon bi passé bi mu desee juróomi fan ci la ko Serigne Cheikh Al Maktoum daal di woo am ay tegtal yu mu ko jox nee na boobu Serigne bi dafa xawoon a tawat ñu bëri foogoon ne nag fi nga xam mooy famille yu tuwaawoon nag coow dina leen topp dañuy dem xamatuñu fu ñu jëm waaye boobu dañ xamul kan mooy Maktoum ak kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy nga xam mooy magam bi ñuy wooye seen Mansour si nee na ñoom nag juróomi weer rek lañ magante ñoom ñaar ñoo bokkoon nekk ci man maa nekkoon seen lu luñ soxla woon maa leen ko doon defal ñooñu seen diggante ngelaw sax xaju fa waaye ki nga xam moo di seen Abdoul Aziz Al nee na problème mu Sénégal nag wax ju bëri la nan fexe ba wax ji ñu wàññi ko bu ñu mënee fexe nag ba Sénégal dinañ toog def trêve boo xam ni kenn dootul wax ñëpp téye seen làmmiñ dina baax ci dëkk bi mu mel ni la waaje waxoon drapeau Sénégal vert zone rouge waaye fa ñu def biddéew ba dañu juum làmmiñ lañ fa waroon a teg

góor gi lan la def dafa bàyyi ba nga xam ne ñëpp dañu dem naafila ji mu daal di ginnaawu xale bi dugg ci néeg bi fekk ko fa daal di koy sànjaafu àgg ci ki xam ne moo di xale bu ndaw bi bi ñu jëlee xale bi yóbbu ko fi nga xam moo di hôpital docteur yi bi ñu ko xoolee dañuy ca dëgg-dëgg kii dañ moo ko def ñun dañ koy nëpp nëppal waaye mbokk yi bi ñu ñëwee ne lii moom ko seetaan ba tax ne yóbbu nañ ko ci yoon jamono yi nag nijaayam boobu ko nag ba yóbbu ko te mu ne dina xam ne nag te dëgg dëgg bugg mburu ko mu jay ba nga dugg fa mburu génne woon boo fa duggee ba génn mburu moo lay tane kon nag mbokk ak xarit yi ñuy seetaan daas du yàq pàkka du def lu dikk ak ci seen xibaaru tàggat yaram wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndan taali mu mel ni baak war na mbaam yéen kaay nu naan la populaire fii la moomu daal di fësal The Lion King ki nga xam mooy doomu Double Less di magu Sa Thiès di ko duppee Triple Less mu nekk koo xam ni képp kuy takk ngemb ci banle bi mooy sa buur gaynde te moo la sutlees kii mooy Balla Gaye Balla Gaye nee du bëri buñ ko fay lu tolloog 200 millions Balla Gaye nee na ci 200 millions lay sëgg daal bëri am na ñoo xam ne fay nañ leen lu toll noonu kon nag ma fay lu toll loolu ma daal di bëri nee na mi ngi négocier ak Aziz Ndiaye waaye mi ngi négocier ki nga xam moo di Gaston Mbengue ñoom ñaan ñëpp ku ko ci fay mu daal di boo xam ne espoir di sax lay bëril Papa ñu bëri ñoom ñaar bombardier li mu koy dawee nee dëgg-dëgg xamul lan la nekk na nag koo xam xam ni nee na waxu Yékini doot ci sori parce que Yékini ca dëgg-dëgg jeexal na benn combat moo ko fi dese lu ko mooy rek day daal able ci wàllu lamb mu mel ni xaalis ak sibaar dugub ñoo yem foo ko teg mu daal di fay ruus bu ñu xoolee ci yéen kaay bii nu naan sunu lamb fa la ñuy samp sunu xalima li nga xam ni Gaston ak Aziz Ndiaye génne nañ ko ci xaalis bëri na lool ki nga xam moo di Ama Baldé ak Malick Niang kenn ku ci ne 40 la la fay muy 80 millions waaye combat bi nga xam ni Aziz Ndiaye tëgg na ko ci diggante Mouhamed Ndao Tyson mbëru askan wi ak ki nga xam moo di Gris Bordeaux nee na la fa génn mat na 200 millions Tyson 120 millions Gris Bordeaux 80 millions mu mel ni njëkkante seen diggante ba tax nag képp koo xam ne nag pare nga pour miser ci combat yooyu di ñëw ca dëgg-dëgg nag boo xefee doo gis jël li parce que li leen fay ci xaalis lool nag jar na nag ñu bëri ba dee ci walu lam ba tey laata ñuy tàggatoo dañuy seeti yéen kaay bi nan la tribune fii la kan la daal di ki nga xam modi Aziz Ndiaye waxna ci digeunte am sen ak modulo combat bi moy ubi saison 2014 dina lu beuri li nga xam moy le 1er janvier ci la ñuy sëgg ñoom ñaar Aziz Ndiaye nee mi ngi balu ki nga xam modi Gaston meng bu fekkee ne am na jiixi jaaxa ci sen digeunte nee mom nak day jël am sen bëreeloo ko ci début saison bi bu ci paré nak ni ko yalax jox ko ki nga xam modi Gaston lu mu xam nak mu def ci ñom ci deug deug quatre combat yu mak lay tëgg te dina tëggal Balla Gaye combat dina tëggal Sa Thiès combat ca am na yeneen mbir yoo xam dina ñëw ci ay surprise lay doon ci saison bi nga xam mi ngi ñëw 2014. kon nag mbokk ak xarit ci doon ci Sénégal TV dafa mel ci cappaandaw waaye nag laata ma koy ndar képp. xam ngeen ni ki nga xamante ni mooy suñu ministre du tourisme bi ñuy wooyee Youssou Ndour

ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ak ñi nga xam ñooy citoyens ak usagers yi nga xam ni nag dañuy yëngatu ci lu bëri ci biir Afrique ñoom nag nee naan loolu duñ ci bàyyi ki nga xam moo di Youssou Ndour lu tax loolu ñu ni yo constitution dafa ni bu fekk da nga nek ministre de la république yon mayetu la ngay def activité bo xamni c'est mana à but lucratif manam dañ ci wut xaliss bo xamni ni koy duggal ci sa gafaka ba tax na ñom du nangu yu sundoo di tëgg bersi te seen tànk tubéy dinañ ko ci xar gar ci nak li nga xam moy sen bakkan ba lol du am nekete yo yu sundur ni ko fan si di xaar yep mu nek sen ministre ni leg leg mu ñew leen dafa melni ni bersi bi mu jëm nak amna ño xamni bëgg nañ ko xajaman ñoon ñooy waa radik loolu nag boon ci bëggee am lu leer da di dugg ci yene kay bi nga xam moy la tribune bo leen ko gesto di ngeen xam naka lañ fa tëddee kon nag mbokk xarit ci ñuy seetaan revue de presse quotidienne bi fii la ñuy tàggatoog yéen laata may dem nag damay jaajëfal ñi nga xam ni ñooñu laa àndaloon ci wàllu xarale bi di ci jiiteel ki nga xam moo di Cheikh Toresia nek ci walu xarale beeg image yeeg ak fi nga xam moo di montage yi waaye nag wax fang bi di caméra ki fa nek koku moy Chris Youssef Nani Brown ki nga xamanteni ni ci deug deug nak moy Salimata Koli mi ngi ñu doon jàppale ci li nga xam moo di revue de presse bi duñ def lu dul di jajeufal ni ni ci aduna bi yep ma cey jital suma xarit sama doomu ndey ndok malik Dieng promoteur bi nek Londres Angleterre ak sama turandoo bi nek albany États-Unis New York Barafal kon nak ñi ngi leen di ñaanal mucc ak xewal ju and ak jamm ju sax dak di leen jox dig daje suba inshallah الله والسلام